Euh, dafa nekk euh, euh, dëkkuwaay boo xam ne dama fi yàgg ñëw depuis de deux ans yi quelques maa ngi fi ñëw nag constamment parce que ay mbokk ñoo fi nekk ay xarit ñoo fi nekk ñu bokk ci sama xeet ñoo fi nekk itam ñu gàttanu ma te permettre aussi que ni littoral bi dafa nekk partie Sénégal boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko waaye xamuñu ko nu mu waree donc di fi ñëw day tax au moins booy waxtaan ak population nga xam ne lépp loo xam ne mooy seen aspiration loo xam ne soxla nañ ko parce que dañ ak population boo xam ne li gën a bari ci li nga xam ne moom la nit ñi di jëfandikoo mu jëm ci mbay ak càmm ak napp mi ngi jógee ci gox bi waaye ñu bari ci Sénégal ñi ngi koy consommer xamuñu nu mu toll donc di fi ñëw day tax au moins mën a déglu surtout nag dama ñëw ak mouvement Nanka boo xam ne mouvement de développement la bu sukkandiku ci mbay càmm ak napp donc euh, pour mën a ñëw waxtaan ak ñoom xamanteeg ñoom nekk aussi seen seen seen baat parce que daana la ñu laata du muy baatu askan bi di leen déglu pour au moins su ma yëkkati sama baat mu jëm ci suñuy autorité mu jëm ci ay partenaires potentiels à l'extérieur mën leen wax exactement fii de bu ngeen ñu gungee ci tel ak telle chose dana indi développement ci ci diwaan bi mu nekk na population boo xam ne dama leen di remercier parce que ñoom ñëpp benn bopp lañu waaye li ma gën a neex itam ci population bi ma fekk mooy dama ñëw fekk samay mbokk Haalpulaar ñu jàpp sama loxo yóbbu ma ci biir Mboro ma fekk fa ay wolof ay séeréer ak yeneen i xeet yoo xam ñu ngi liggéey fii ci diwaan bi ñu won ma ni ñoom ñoo bokk ndey bokk baay dëppi sax ci seen mamaat ba ci seen ay maam bu ñu ma teg seen i boolu reer wala seen boolu añ ñoom ñoom ñoo koy bokk te ba léegi moom ba fi nekk te loolu lañ bëgg Sénégal cohésion sociale boobu nga xam ni xeet yëpp dañu àndandoo nekk benn du pulaar du wolof du séeréer lii laa fekk nag si ki moo tax maam cawarte lool ànd ak mouvement bi ñëw ne leen tàll nañ leen sunu loxo pour àndandoo ak yéen liggéeyal la liggéey liggéey ak leen après aussi bu fekkee ne am na foo xam ne seen baat bëgg na bëgg ngeen mu yàgg fa on est prêt à vous pour mu yàgg fa c'est en pulaar parce que le pulaar nag na ngeen may permettre ma wax ko pulaar c'est une langue internationale parce que parler dans plus de vingt pays dans en Afrique donc mën nañu prétendre comme langue et le français tuddee ko suñu mouvement bi mais nan ka premier N bi donc mooy ndema muy mbay A bi ci topp mooy aw mooy napp beneen N bi ci topp mooy ngay naa ko mooy càmm beneen end bi ci topp mooy li ma doon mooy culture parce que loolu yëpp mënul dem sans la culture mu nekk cas mooy yéen li ngeen doon mooy les nouvelles technologies de l'information de l'agriculture de la pêche parce que boo doon bay benn hectare ñaari hectare nga war a bay léegi ay centaine d' hectares foog nga indi ay machine foog nga dugg ci jamono bu bees pour être très compétitif loolu xëy na du ñun yoruñu xaalis bi leen koy jox mais dañ ko bëgg a dugal seen xel wala boole leen ak ay partenaires yoo xam ne dinañ indi loolu ndax xeet bi mën a avancer dans le développement merci beaucoup. xam nga Sénégal léegi bi ko président yore ba léegi dafa nekk dafa def benn programme ñu koy wax PSE programme bi nag daf ko ci vision mu teg mu décliner ko en action yooyu nag bu ñu koy def c'est pour développer Sénégal pour Sénégal bu avancer Sénégal de tous et le Sénégal pour tous léegi nag bu ñu gisee ku mel ni Baaba Maal nga xam ne c'est un vecteur renommé rek renommé renommé mu dem fenn rek jar na nit ñi cotiser fay sax mu ñëw fa parce que fu mu musa fu mu ñëwee fii tey Sénégal monde bi yëpp dinañ xam ni Baaba ñëw na ci dëkk bi te mu xam dëkk bi doon fi noppalu am fi ay mbokk ñëw ñëw di leen dimbali parce que li mu def nii ak association bi nga xam ni moom moo moo ko teg nga xam ni Nankaar pour développer les zones mu daal ñëw fi lu baax la donc ñun ñi nga xam ne on des acteurs politiques bi ñu ko déggee dañu war ñëw accompagner ko waxtaan ak nit ñi ma am fi nag ay xarit yu bari am fi ay militants yàgg naa fee ñëw politique ñoom ñëpp xam ne xam nañ ma le marabout Sola ah c'est notre marabout chaque jour dañ fiy ñëw tout ça di def di fi ñaanlu et tout mu baax pour liggéey bi yëpp président liggéey c'est pour améliorer les conditions de vie des populations Baaba Maal amee programme bu mel noonu boo xam ne dafa bëgg a li nit ñi ñëpp dañ cee war a jàpp parce que la finalité du développement et de l'émergence c'est vraiment améliorer les conditions de vie des population ñu ñaan ñëpp ñu jàmm politique dafa war a ànd ak développement politique bu àndul ak développement amul njariñ parce que programme économique c'est pour améliorer les conditions de vie des populations et la culture c'est dafa baax parce que c'est un vecteur c'est un vecteur ñu bari ñu xamul woon Kondio bi dinañ ko xam tey ndax Baaba Maal bi mu fi nekk daal di fi ñëw di noppalu mais tey daf fi ñëw ak ay ay communication yu bari yoo xam bu ngeen ko wonee ñëpp xam dëkk bi dina tax sax peut-être mu attirer ay nit ñu ñëw fii xool parce que fii plage la neex naa dëkk nit ñi mën nañ fi def ay ay ay ay hôtel mën nañ fi def mën nañ fi ñëw noppalu mën leen a xam et donc loolu moom lu baax la parce que kuy liggéey ci améliorer conditions de vie des populations bu la boo ko bu ñu la fayul fi sax yàlla fay la parce que loolu rek la solidarité loolu rek moo moo sax mooy moo tax nit ñi fi ñu jóge ñu mën fa dem feneen foo xam ne moo gën jërëjëf